remercier équipe bi remercier le président de la république encourager sénégalais yi ci kenn ku ne loo nekk rek nga fexe fa am fa ndam jiitu fa et avec l' ensemble ci loolu lañ mën a yëkkatee suñu réew ni sport bi nekkee numéro un noonu lañ war a xeexee ci domaine bu ne ci domaine bu ne ñu nekk ci numéro un incha allah. yàlla may li nga doon lii fan la mën a yóbbu réewum Sénégal sur le plan euh, continental sur le plan mondial. waaw en xam nga tey ay fête la mais fi mu ñu mën a yóbbu mooy ñu exploité ko. exploité ko mooy fexe ba defar footballu Sénégal muy football bu baax parce que neex na trop ñoom ñu gagné coupe bi mais la lendemain ñoom ñëpp nañuy jël avion dem Europe li gënoon moom mooy ak te xam naa ne loolu président de la république wax na ko. ak ministère des sports yëpp ñu fexe ba nga xam ne nii danañ am ay joueurs yu qualifiés yoo xam ne nii buñ gagné coupe bi tamit dana am ñu fi toog am ñu dem. loolu mooy li nga xam ne nii moom laa xalaat ne moom moo doon yóbbu Sénégal. sa message sa kàddu gu mujj sa message lan la ci peuple bi. ci peuple bi xanaa compte ni ko dama représenté waa Kaolack ici xanaa di leen gërëm ñoom ñëpp leen ñaanal yàlla euh, engagement bi nga xam ne nii ñoom jox nañ ko lion yi. yàlla fay leen ko daal nga xam ne lii mooy loo xam ne na amal njariñ Sénégal amal njariñ a euh, Sénégal daal voilà. pour ñu fas yéene def seen tournée doxantu saafonte ak askan wi ci biñ leen defalalee maanaam lu rëy li nga xamante ni defal nañ ko askan wi on vous laisse savourer ces moments intenses. Mais le grand, tant que confrère, en tant qu'analyste, après avoir suivi euh, cette aventure de nos lions, mais tey kilifa gi looy ressentir. ci ndam rëy tey tey foog naa ko président du ma la présenté nag waxal askan wi journaliste la L'As Quotidien comme ni ko président waxee naa ne tey amul budget amul opposition amul média. coupe bi pour coupe Sénégal la ñu xool sedd na comme ni ñu ko waxee ñoo ngi koy xaar depuis 1960 ñoo ngi kontaan di bég suñu bopp bu bu fekkee ne suñu génération ñun ñoo fekkee fu Sénégal di jëlee coupe d'Afrique macha allah. en terme de visibilité dogguma la. tey lii nu am ni lan la ñu mën a may à travers le monde. non mais déjà aujourd'hui tous les tous les tous les médias du monde sont rivés au Sénégal donc déjà en terme de visibilité rek adduna bi yëpp démb dafa mel ni Égypte da doon joué ak yëpp. parce que ñëpp ñu ñoo ñu ko yéene woon parce que Sénégal en terme de sport en de diplomatie en de géopolitique daa am lu muy posé lii lii dafa nekkoon loo xam ne moom nañ doon xaar pour ñu gën a exploser jàpp naa ne bu ñu jógee fii dinañ dinañ dinañ dinañ am ay ndam yu rëy rëy rëy yër après ñoo ngi xaar sax pourquoi pas pa pas euphorique mais coupe du monde bi ñu gën a sori bu ñu bu ñu eggul demi final aussi ñu egg demi final wala pourquoi pas final. mais am nañ benn étoile amaat beneen day dagan. waaw oh, day dagan day dagan day dagan. daa la fête est avance. les lions enfin le trophée a été promis c'est fait je suis en direct avec mon confrère Gasson de Libération Gasson euh, l'épopée qui était mandingue est maintenant sénégalaise. oui le Sénégal est victorieux le Sénégal a remporté sa première Coupe d'Afrique des Nations. aujourd'hui c'est la fête à l'aéroport donc gaynde yaa ngi noonu Abdoulaye Seck la ngeen doon xaar depuis les indépendances def ngeen ko waaw waaw gaynde yaa ngoog waay Diaw Baldé Keita kaay ndam li yegsi enfin la coupe est chez lii neex na ci xol waa mais lii neex na ci xol mbaa xol yaa ngi feex mbaa xol yaa ngi feex